ci alxamis gi ñi di waa GAIPES amaloon nañ ab ndaje ànd ceeg waa forum civil ak taskatu xibaar yi loolee ngir waxtaanee ci lu jëm ci wàllum publication liste des navires de pêche autorisés. Euh, ñu def tey benn waxtaan boo xam ne dañ ko jagalee taskatu xibaar yi parce que dañoo gis ne que euh, euh, taskatu xibaar yi du seen métier napp du seen métier te war nañ leen mën a gën a leeral lu bari ci li nga xam ne ñu ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu am nañ luñ ci xam. ginnaaw ba ñu càmbaree boobu boobulee ci ñoom nag li ñu ne mooy gis nañ si ay mbir yoo xamante ni teguwul woon ci yoon. biñ ko càmbaree nag gis nañ ni que indi na ay réponse li taxoon ñuy nëbb liste bi am nañ ci lu ñu ci gis ci suñu bët diggante deux mille dix huit mille ba vingt quatre yi nga xamante ni dañ koo def ci pêcherie boo xamante ni pêche démersale profonde te li ci gën a bari euh, ci pêche démersale profonde boobu deux mille dix huit deux mille dix neuf ñaari bateau rek moo ko amoon licence tey bi ñu ko xoolee am na quarante am na ñeent fukki ak benn bateau yu ko am waaye itam ñu doon wax ci carton jaune bi nga xamante ni Union européenne daf ko daal di jox lii di Sénégal. ñoom dañoo am xel ñaar ci ndax produit yooyu ñuy def yëpp suñu dëkk bi la jóge wala déet donc am nañu ñaari weer pour mën a waxtaan ak ñoom ñu yaakaar nag waxtaan boobu dina tax. ñu mën a profito pour leeral lépp li ñu napp mu nekkoon am ndaje gu ñu doon loolee ngir leeral taskatu xibaar yi lépp lu jëm ci wàllum liste bi nga xamante ni ministre bi daal dina koy publier. Thank you.